tëji na ba ñëw donc euh, di sant yàlla bu baax bi nga xam ne wax dëgg yàlla yëf yi amul euh, benn xëccoo amul benn coow boo fa duggee doo xam kan moo ànd ak Benno kan moo ànd ak euh, Yewwi kan moo ànd ak yeneen parti loolu yëpp nag doy na sant yàlla donc li ma seetlu nag moo di nit ñi bareeguñu léegi nag nit ñàkk bari nit boobu nag man problème bi dama koy gis ci ñaari angle xamaguma ban la nak moy nit ñi ñu wate si wala bok wat bi dafa gaaw ndax man mi sama sama bop ba may watee matul 1 minute matul 2 minutes donc yaakaar naa ne comme que nit ñi alkaat yi dañ leen wax ku wate na dem yaakaar naa ne lool motax ñom ñoom dajewuñ fa donc euh, ñu ngi sant yalla bu baax bu ci kanamé nak xamna naa euh nit ñi dinañ jokk dañ ñew surtout jeunes yi parce que fi ngeen ma fekk fii maa ngi oote di ràññee ñi nga xam ne voté guñu pour que ñu ñëw voté. def li nga xam ne mooy sama devoir citoyen comme ni ko Sénégal yëpp tey nar defee si bés bi nga xam ne moom lañuy ñuy fal suñuy député ñëw naa fii si centre Maurice Gueye si bureau numéro un def li nga xam ne ne mooy sama wareef di ñaan yàlla aussi élection yi mu am si jàmm niñ ko commencé nii mu tàmmalee ko euh, si nii aussi.

Euh, te yaakaar naa ne feex ngoon di ngeen gën a gis influence bi parce que képp kuy responsable tey euh, système bi moo changé ñun au niveau de la coalition ak ñi ñu àndal ñëpp si kii bi sunu mandataire yi ñu ngi def liggéey bu am solo mooy dem si kër yi génn électeurs yi indi leen fii ñu voté loolu nag soo amee suivi bi am statistiques yi da ngay xam ne ne amul benn inquiétude booy def si niveau vraiment de relèvement de l' électorat électeurs yi dinañ ñëw voté comme niñ ñu ko daan defee mais bi yoon dañuy ñëw yenduwuñu fi tooguñu fi dañuy ñëw dem jëli seen électeurs yi ñëw continuer di liggéey loolu la mandataire yi di liggéey depuis si suba